noo ngi leen di nuyu ci kàddoog sunu kilifa gii toog di sëriñ Mouhamadul Mahfous Mbakke mam soxna May mam Xaadimu Rasuul sëriñ Mouhamadul Mahfous Mbakke mam sëriñ Cheikh Balla mam borom daaru ku ne xam na ne yoonu murit sëñ Bamba ko sancoon sos ko moom ko waaye ceeru rek ku ci doon mu dénk ko bi mu ko denkee borom daaru mu téye ko lépp sëñ bi dem ba del fekk fi mu bàyyi woon yoon bi nu mu ko bëggee woon borom daaru defal ko seen diggante ci gisee loolu mooy bi ñibbisee loolu mooy indi màggal daarum si gii waaye fii nu toog noo ngi toog ak taalibe yëpp ñu dend ak sëriñ bi ak sëriñ Cheikh Balla mi nga xam ne mooy taawu sëriñ bi mu toog ci kàddu rakk bi yëpp ñu ne ci ginnaam di sëriñ Xaadim ak mboolem ci mbokk sëriñ bi di Mouhamed ñoom. waaye ci biir loolu lépp maanaam Baye Cheikh kàddu seen kàddu fu mu nekk fa lañ nekk lu mu waxul waxuñu ko moom Baye Cheikh it sëriñ bi lay déglu lu sëriñ bi wax loolu lay def loolu lay jëfe kon loolu yàlla na yàgg. Ah, di yëkkati kàddu yi nuyoo nag ak. kàddu ziar di ko jëmale bépp jullit na bépp taalibe di leen ndokkeel ci weeru tedd wi nga xamee ne ah, ay ngëneel yu bare bare bari da cee daje ndax alayhi salaatu wasalaam wax na ne ci weer wi la suñu borom di yëkkatee jëfi doomu aadama maanaam ay jaamu yàllaam ci weer wii leen koy yëkkati ndax saxaaba daam saxaaba ko laaj ne ko man de gisuma ngay woor weeru mat sëkk lu dul ramadaan waaye li ma gis nga koy woor ci baraxlu du ma gis nga koy woor ci yeneen weer yi alayhi salaatu wasalaam ne ko weeru baraxlu ci leen yëkkatee jëfi jaam yi dama bëgg bu nu yëkkati samay jëf mu fekk ma ci koor kon weer wi weer wu tedd la waaye bokk na ci ngëneelul weer yi ci la suñu boroom euh, euh, soppee xibla bi ni jublu bu ndee julli kon xam na ne njëlbeenug lislaam buñ daan julli dañuy jublu baytul maqdis di Jéru Jérusalem euh, ci weer wii nag ci la suñ boroom joxe ndigal alayhi salaatu wasalaam nekk boo dee julleeti del jublu Kaaba qad nara taqalluba wajhika fi sama fa la nuwalliyannaka qiblatan tardaaha fa walli wajhaka shatra al masjid al waaye bokk na ci ngëneenul weer wi te loolu eh, ñun taalibe mu gën ñoo yitteel ci la Cheikh Ibrahima Fati dajeeg njëkk a dajeeg Serigne Touba bi Serigne Touba jugee ci géej gi. Eh, te njariñul ndaje boobu ku xam na ko ndax Serigne Touba bi muy dem eh, maam Thierno Ibrahima Faty la dénk lépp ndax moom dafa nekkoon ci am mission moom Serigne Touba eh, mission bi nga xamee ne moo fi andi woon yonent te alayhi salaatu wasalaam jiitu ci mooy yar nit ñi ak jàngal leen. maanaam defar doomu aadama huwa alladi baasa fi lumiyina rasula minhum yatlu alayhim wa ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimhum alkitaba walxikma wa in kaanu min qable fi dalalin mubin nee na maa yónni bi alei salaatu wasalaam ci eh, nit ñi nga xamee ne ay ummi yi lan ummi mooy koo xamee ne du du jàng du bind ana lu tax mu yónni ko ngir mu jàngal leen bi yàlla bi waaye ngir mu eh, eh, yar leen def ci ñoom jikko yu rafet sëriñ Tuubaa nag dafa doon yonent bi ndax ku ne eh, alayhi salaatu wasalaam nee a al ulama warasatul anbiya borom xam-xam yi nga xamee ne ñooy jëfe seen xam-xam ñoo doon yonent yi sëriñ Tuubaa dafa bokk ci ñooñu moo tax mission bi taxoon a jóg yonent bi moo ko taxoon a jóg te mooy defar doomu aadama moo tax mu ne diinun siwa islaamihi laa ma yuhmadu andal ilaahi bihi nu jaddidu ci loolu la nekkoon eh, di taal eh, eh, di di taal taalub lislaam tubaab yi ñu bëgg koo fay loolu moo waral ñu ñu ko jële ko ci am réewam taxale ko njabootam exilé ko lu ma juróom-ñetti at yu manqué ay weer waaye ki ko doon mottalil liggéey boobu nag mooy maam Thierno Ibrahima Faty mooy ki nga xamee ne daf koo defar lépp lu nekk ci moom moo ko moo ko ci def nee na dama ko tëgg ba eh, ni ma neex ba mel ni ma neex ni nga xamee ne naar bi noonu lay tëggee satla bi ba mu mel ni ni neex nee na ma ne maa tëgg ba mel ni ma neex lépp lu ngeen ci fekke rek maako ci def lu ci naqari mën a lu leen ci neex mën a kon mën noonu wax ne moo jëmmal euh, almuridu saadiq muridu saadiq bi gën a jëmmal njàngalem Serigne Touba gën a jëmmal ay principe am mooy maam Thierno te loolu Serigne Touba moo ko ko seedeel ci ay seede yu bare bare bare bokk na ci rek li muy wax ne euh, Ibrahim ibnu walidi alladi lam yu xaalif nii fi sigarihi wala fi kibarihi dellu wax ne lam yu faariq nii fi sigarihi wala fi kibarihi nee na Ibrahima mi nga xamee ne sama mbokk la te musta taqale koog man ci ak ak ci matam waaye itam musta wuuteeg man ci ak ndawam ak ci magam dellu wax ko ne ko ayuhal masbuux bi xubbi naa nee na bu fekkoon cofeel paaka la dañ la caarandi ci bëgg ma te képp koo xamee ne nag rendi la la ci bëgg ma danga nga texe texe goo xamee ne texe di dootu ca topp ba faw kon loolu moo tax ñu ñu ñu ñu ñu daje ci bis bi ngir fàttalu ci fàttaliku daje boobu nga xamee ne euh, daje bu màgg la ci yoonu murit waaye itam fàtt fàttaliku ci jaar jaar yi borom daarul moxti ngir euh, man cee euh, jële ay bind ngir man cee jële ay bind ndax ni ma ko waxee rek mooy murit saadex bi nga xamee ne Sëriñ Tuuba moom la ñu royloo waaw ndax li ci firnde rek ak njabootam moom la ko dénkoon lu nekk ci ñoom moo ko ca def waaye taalibe yëpp itam ah, maam no la leen dénkoon ah, bokk na ci lin mën a ah, royee maam no mooy équilibre bu mu am maanaam li naan charia al xaqiqa daf koo boole woon kenn mënu koo jam ci lislaam waaye kenn mënu koo jam ci ak pësteef ak bëgg Sëriñ Tuubaa te loolu loolu loolu loolu loolu moo jafe équilibre boobu moo jafe waaw ah, ba tax na képp koo xamee ne suñ borom xéwale na nga nga nga nga mën leen a boole dañ laa war a roy na ulaayka alladina hadahumullahu fa bi hudahu muqtadi suñ borom bi muy eh, nettali yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent yi ko woon ku ci nekk mu tudd say melo nee na ñooñu nag dama leen jindi kon na nga ci ñoom kon képp koo xam ne suñ borom daf laa jubal eh, jaam yi doona war a roy ci ñoom eh, ci ñoom eh, fexe ba ku ci ndigalu suñu borom yi te kenn du ñu gis ci ay tereem rafetal sunu taalibe rafetal sunu diggante te rafetal sunu jëflante waaw ni ma ko waxee rek ku la gën a rafet jëflante moo la ëpp diine moo la ëpp lislaam yàlla nañ ci yàlla dimbale ñu sant ñëpp di gër ñëpp salaamaaleykum wa rahmatullah